asalaamaaleykum mbokk internet di seetaan xaas TV ginnaaw jàmmaarloo bi amoon ci diggante way takk der yi ak waa kër Sonko ci loolee ñu koy tuumaale ci moo violé Adji ak violewu ko ba tax na nag waa xaas TV wàcc ci terrain bi fas yéene laaj askan bi naka lañ ko gisee ak ban jàngat lañu am. Ousmane Sonko am ci naqar rek ak jafe-jafe ak tiis bu metti ndax Ousmane Sonko dañ ko ëpp doole di koy di koy tuumaal lii ak Macky Sall éliminer ay adversaire politique xam ne Ousmane Sonko c'est le seul leader opposant mu bëgg koo éliminer politiquement c'est ça c'est pas autre chose. attention parce que moom nee na dañ ko woon ay kayit yu leer ne ko institut bi baax na kayit yi nag baax na wala baaxuñu loolu enquête bi moo ñu koy wax parce que Ousmane nee na da waaye ndaw si da koo woon kayit yu leer il a demandé des renseignements ñu ne ko kayit yaa ngi nii am nañu ils sont assermentés war nañu maase waaw bu ma déggee nag euh, kinésithérapeute yi di naan waruñu maase. parce que ñii du seen liggéey loolu bu fekkee loolu am na nag defoo dana am defoo dana am ci moom dana am ci ndaw si femme bi parce que tamit femme bi tamit je la reproche la propriétaire du salon de massage parce que nee na dàqoon na ndaw si parce que boo dàqee nit dafa am faute yoo xam ne def na ko mu jëlaat ko encore de plus bu ko jëlaatee war ko boolee ak une personne comme Ousmane Sonko bu ko jëlaatee Ousmane Sonko bu fa ñëwee war na ut koo xam ne euh, moralam baax na mu boole ko pour mu maase du jël koo xam ne probité moralam bi baaxul mu ne ko demal maasel ma Ousmane Sonko parce que war na xam ne Ousmane Sonko mooy kan parce que Ousmane Sonko fu mu nekk nii c'est une bête noire du régime bu fekkee da nga ko koy boole ni da war a boole ak koo xam ne ku wóor la koo xam ne suba ko mën a manipuler mais su fekkee koo xam ne elle est de mœurs légères comme ni ñu koy waxee yàlla ma yàlla boole ko ak ne ko demal maasi Ousmane Sonko bokk na ci ñoo xam ne ils ont entraîné Ousmane Sonko ci problème bi borom salon bi voilà. kilifa war na mën a dugg ci genre endroit yu mel noonu. bien sûr Ousmane Sonko jeune la war na defal yaram te moom ne dafa feebar. massage bi muy massage am na docteur bu ko fa yóbbu. mu ko ne pour kii fii moom këram am na ay kayit yu leer état bi moo ko institut bi xam nga institut yi la am na am na kayit yoo xam ne état moo ko jox ah. mu ci dem di faju di pharmacie dem amul problème su fekkoon ne privé la ay étage yoo xam ne ay xale yi ñoo ubbil seen yëfu bopp à la rigueur mais kii dafa jël ay employé fanaan ci kër gi. ñoom ñu koy maase vraiment loolu gisuma ci lu aay waaw. affaire bi dafa nekk loo xamante ni yow ça sera un peu difficile pour ñu prononcer ci surtout bu ñu amul yenn information yi et tout mais nekk na loo xamante ni en fait euh, affaire bu day waar rek parce que mbirum tuuma bu ñu demee ba koy tuumaal nit euh, genre ñun personne ordinaire yi mu mën a guñ ci wax sans autant que ñu am ci yenn information yi leer yi quoi. mais euh, leen nag la ñu am lu ñu ciy jàngatee euh, muy Sonko en tant que autorité bu toll ni moom wax dëgg yàlla liñ koy reproché mooy bu demoon euh, bay faju wala bay traité wu mënoon na nekk quelque chose de plus professionnel que ça. tout ça on comprend pas kenn du fu ngay dugg ak fu ngay génne mais nag que euh, <coughs> l'Assemblée nous dise la vérité. suñu genre njiitu ci yenn endroit yooyu noonu di fa dugg bañ di leen tuumaal li ñu leen li ñu ko tuumaal tey. waaw mais c'est que dafa feebar xam nga ku feebar foo dégg fu nga war a dem nga faju da nga dem moom faju moo ko yóbbu mais lu yore dafa dem ba def affaire yooyu loolu moo jaaxal ñëpp mais moom nee ne lu ko yóbbu feebar moo ko yóbbu foofu faju du dégg mais femme bi ku ko wax dafa ko violé moom entre moom ñaari ñoo xam affaire bi lu mu demee mënu ma la wax femme bi dafa fen mënu ma la wax Sonko dafa am dëgg léegi nañu xaar rek comme y'a l'enquête qui poursuit nañu xaar rek. yàqu yi nga xam ne lii ni ñu ko tuumaal est que du yàq li nga li nga xam ne moom la jotoon defar. Ousmane Sonko tey lañ koy gën a dëral sax parce que xam nañ c'est le seul opposant Macky Sall élimine tous les autres opposants xam na ne kii moo ko fi desal. lii rek la ko parce que jéem na koo fexe ministre de l' intérieur génne ay deux heures du matin def communiqué de dissoudre Pastef xam na xam ne xam fu mu jaar feneen fii rek la ko mën a jaaree tuumaal ko ana ndaw sax an ana témoignage bi borom ki moom suite bi waaw ana mu dañ ko war a déglu mais mu ngi ni wax na loo xam ne bu méngoowul ak loom lu ñu bëgg ñu ñu téye ko pour lan bu avocat am ñëw intervenir gis nga réew mi il faut moom opposant li muy def nii jëmul réew mi suñ ko defoon nii du yor réew mi c'est ça Macky Sall il doit revenir à la raison na bay li muy def su ñemee na jàmbaarloog askan bi jambarlook opposant yi mais pour lan mën nga réew mu amul opposant on est écœuré quoi. yi nga xamante ne nii ñoo nekkoon keroog kër Ousmane Sonko lañ fa yàq yëpp gis nañ ko est-ce que tey loolu du gën a indil Ousmane Sonko jafe-jafe. non xam nga jeunes yi dañoo mer xam nga kuy mer booy def doo doo seet doo contrôler sa bopp parce que dañoo xam ne Ousmane Sonko dañ ko bëgg a rek. ñu réagir noonu mais si tey en âme et en conscience du ñu defee lii parce que yàgg nañ fi defiñ ko surtout ni ñu def ñuy wax ne dañ koy convoqué te dindiwuñu immunité parlementaire am ñu bëgg koy yóbbu noonu comme ça nga ne dañ ko bëgg a jaay doole loo tax ñu wane ne ñoom su yeboo ñu rey leen sax waaye moom dañuy opposé wu euh, waa xale bu jigéen bi euh, ñun mënuñu ne ay tuuma la mënuñu ne da ko dund euh, moo comme li ma wax léegi ñu ngi xaar mu indi mu indi ay firnde yu leer parce que bu nekkee tuuma nee nañ am na ay preuve nee nañ am na leneen ak leneen mhm. mais bu ko génnee teg ko ci taabal bi dinañ xam ndax lii ay tuuma la wala lii dëgg la. Euh, bon benn benn message bi may lancé mooy sama moromu jeunes yi nga xamante ni ñu ngi doon toj ñii di yàq euh, jaar ci ay biens publics yoo xamante ni ñun ñoo koy jëriñoo parce que muy Sonko muy mag Sall bu ñu génnee dañuy jël seen oto dem seen yoon loolu ñuy yàq ñoom ñoo koy soxla. ñoom ñooy jëlaat bus yi ñoom ñooy duggaat ci Auchan yi ñoom ñooy dugg feneen ak feneen loolu moom franchement metti na ma lool lool lool ba ci kanam yàlla waaw. moytu nit bi fu fekkee fu mu nekk nii foo toll yoo xam nga ne ñii yëpp dañ maa bëgg a dugal maanaam dañ ma bugg a empêcher pour ma ma ma def jaar élection na xoolaat boppam moom moytu bu baax a baax te xam fu muy teg tànkam. parce que bu xamul fu muy teg tànkam du sotti te tam war a war a am ay conseils yoo xam ne muy massage am muy fu mu war a jaar comme ne nañ président Sonko lañ koy wax. fu mu war a jaar dañ ko war a xool nit ki bu fekkee seen leader la santé am sécurité am war nañ ko seet waaw buñ koy maasee ñoom war nañ xam naka lañ ko war a maasee ak fan lañ ko war a maasee loolu daal laa ko mën a conseillé. waruñu ko def yàqu-yàqu boobu waruñu ko woon def du fii rek Dakar fépp le région yëpp yëpp def nañ lu ñu yàq yëpp c'est pour nous station yi ñuy lakk affaire yi ñuy def yëpp on va revenir réparer c' est de l' boobu nag waruñu koy def. indil Sonko problème loolu nga xam ne ay militants moom lañ def. oui en quelque sorte Sonko normalement warul am problème lu mu wax. waru am problème normalement faju moo may yóbbu mais affaire viol moom. d'accord nee na xalaatul loolu